xanaa ku wan aw yat daanoo ci saret sax lu toog naan dañu war a béy quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais xam nga loolu loolu dafa xam nga xam nga euh, wolof dañ ni wax bu bu le bu dofee nopp yi ko war a dégg war a dof xam nga nag man on peut m'accuser de tout waaye man dofuma kan et puis on peut m'accuser de tout waaye xanaa ñi ma gën a bañ sax xam nañ ni quand réew mi am na lu ma jaral on peut m'accuser tout mais lu nit dof dof xam ni quand même il m'est arrivé de prendre des risques important fii ba dugg fi kaso ñu def ma fi lu ne parce que dama doon défendre intérêt réew mi donc nan laa may taxaw naan nañu nañu nañu nañu rey nit ñi ba pare li ma def ci tubaab mooy un raisonnement à fortiori mooy boo demee ba nar jaar fii maanaam bu ma ko doon wax ci wolof mooy parce que malheureusement euh, je pense en français man ci français lay xalaat su ma la ko bëggoon wax wolof mooy bu jaree sax ñu àgg fii loolu laa bëgg a wax mais mënuma taxaw naan nañ rey kat ba pare may mun a ñii di ko wax nii encore une fois dofuñu gën a jàpp leen xam nañ ni musuma taxaw ni nañ rey quatre-vingt-dix pour cent de sénégalais musuma ko wax. mais Yérim xam nga da nga utiliser un langage imagé xam nga euh, dëgg bi mooy Sénégal damay d'accord benn affaire bari na manipulation te ku ci nekk. li ci garaaw mooy léegi fu la mbir ma arrangé rek ah. nga koy waxee ah. waaye tamit euh, wax yow responsabilité boo jëlee responsabilité wax am na ñoo xam ne ils sont de bonne foi noonu lañ ko comprendre ah. noonu lañ ko déggee vous auriez pu dire cette histoire doit être réglée quoi qu'il nous en coûte ouais, mais, euh, madame, que, euh, que, que, que le prix le prix de la préservation de l'état de droit et de la démocratie xam nga yow jar na sacrifice bu nekk yow loolu ngay wax yow waxal ni nga mën a waxee non defal naa defal naa. non non non xaaral rek xaaral rek non man d'accord nu ma accepté nga naan ma nii nga ko war a. non non donc waxuma nii nga ko war a c'est-à-dire. Mhm. gis nga am na exemple yoo xam ne. puisque mën na choquer puisque mën na créer polémique mhm. euh, brouiller le signal de ton discours mënoon nga utiliser beneen exemple. waaw mais may mun na li ngay wax nii mooy waxu mooy c'est-à-dire que pour man du respect sax ci man. c'est pourquoi. parce que nus ku nekk sa tempérament ak sa sensibilité ngay waxee. discours radical non dafa nag non boo ma nee boo ma image voilà li nga wax dëgg la image. image nga waxee image mais dañuy waxe image. image ku boroom xel image ngay waxee ak moom réew mi ay dof dëkkuñu fii réew mi ay nit ñu yeewoo fi dëkk may mun a ñiy wax ni dama wax ñu rey nit ñi ñëpp xam nañ ni waxuma pour ñu rey nit ñi ñoo ko tey c'est-à-dire que dañuy fen xam nañ bu baax li ma bëgg a wax. xam nañ ni image laa utiliser xam nañ ni li ma wax métaphore la xam nañ ni seen raisonnement à forcerie dofu ñu jënd jàpp leen comprendre nga mais waxe ko noonu moo leen neex xam nga lu tax ñii bëgguñu ñu xam fond message bi ma wax maanaam li ma wax bëgguñu bëgguñu mu dugg ci bopp nit ñi donc faw ñu jël benn benn moo ci li ma wax ci forme bi pour yàq fond bi il faut nga comprendre loolu stratégie la maanaam li ma wax au fond maanaam idée bi ma wax arrangé wu leen donc danañ jël ni ma ko waxee ba yàq idée bi ñooñu moo ñenn ñi loolu moo leen jiite moo leen moo leen moo leen mooy li nga xam ni moom la ñuy wër ñeneen ñi wax ci Cheikh Yérim set daf leen neex parce que dafay bëse am na benn borom site bu mag bu ma ne yow sa tur site article bu mu dugg mais compteur bi dafay monter d'une manière parce que loolu ñenn ñi dañuy bëgg a siiw xamal ma parce que. quand jàppal ne xam nga y a la loi de Condorcet. parce que niñ leen ko rapporté la bàyyil ba ma pare bàyyil ba ma pare bàyyil ba ma pare pare gu ma y a la loi de Condorcet pour être célèbre pour être fort pour important il faut s'attaquer à plus célèbre plus fort et plus important que soi dafa am ñoo xam ne nii may mu na dafa am ñoo xam ne nii hmm? tey pour ñu buzz dañuy gis kuy buzz ñu attaqué ko c'est normal loolu on connaît. comprendre nga bu loolu weesoo yëpp nag am na ñoo xam ni ñoo tax tey may expliquer nii. mooy ñi nga xam ne nii ils sont de bonne foi. vraiment xel mu ñaaw lalul seen kii mais nit mën na wax ba jaxase seen xel ñoo ñoo tax may expliquer nii mais bu doon les gens de mauvaise foi nga xam ne xam na li ma wax ba pare di dof doflu yow xam nga ne am naa matu bu ñuy wax ba teppeeku sama yoon ci ne <coughs> parce que man yooyu yëngalu ma xam nga man moom vraiment soxna si campagne de diabolisation boo mën a def ci àdduna rek jëmale ci man gis naa bu ko gën a garaaw man calomnie maanaam jëw diabolisation yàq der tam dëmm bu ma doon rey ba tey dee naa est-ce que xam nga donc aw ma ci problème parce que man li ma intéresse mooy dofuma jën a jàpp. c'est xam naa li may def xam naa li. non yërëm yërëm euh, l'envie de solder tes comptes avec ces la warul occulter la nécessité nga wax ak cette grande masse-là expliquer leen ci kàddu yu gën a oyof li nga bëggoon wax parce que li nga bëgg a wax danga nga jàpp ne mbir mi dafa capital pour ëllëgu réew mi war nañu indi solution ci mbir mi parce que dañoo war a préserver l'état de droit dañoo war a préserver la démocratie ñu jox l'impression aux Sénégalais que yemuñu ci yoon mais lan laa def lan mais pour cette grande masse bi ma liiree léegi bi ma liiree léegi bi ma liiree euh, Ba li mu wax lan laa def loolu ma explication bi li ma bëgg a wax ci gàttal pour mu leer wax naa ko sax ci émission bi nit ñi dafa nit ñi dama ni leen problème bi boo ko nëpp nëppalee soit disant parce que Ousmane Sonko dafa am doole ëllëg di nga bëgg jàpp nit mu créé milice privée te armam ni kenn du ma jàpp yooyu yëpp wax naa ko lu tax bi ñuy wax waxuñu loolu yëpp donc xam nga ku mënul ku bëggul comprendre may mun a mënoo ko expliquer xam nga laay expliquer man sénégalais yi nga xam ni xam nañ ma xëy na buñ ma bëggul it bañuñu ma te ils sont de bonne foi ñooñu laa bëgg a ne li ma wax c'est très simple dama ni leen problème bii. ak lu mu mën a jar dañ ko war a régler selon la loi maanaam jël loi bi appliquer ko ndax ci république xam nga république mooy lan res mooy li ñëpp bokk li ñëpp bokk dañ ko war a teg ci yoon ñëpp yam lay mêmes droits et y a le principe de l'égalité de tous devant la loi xoolal eh loi ku mu daan dañ laa war a daan loi ku mu bàyyi dañ laa war a bàyyi ak koo mënti doon noo mën a sant boo dee góor nga boo dee jigéen